concours sañse jehna saison 1 bi tëj waye gannaaw lolu yombul won ci Pikini Production équipe bi nekkon ci ginnaw sonnon nañu ñakkon nañu tiitoon nañu lépp rek ndax bëgg émission de qualité bu jéggi dayo Aliou Ndiaye mi jité Pikini Production firndel na lolu ndax mom mo def concept émission bi ñu naan concours sañse ginnaw bi Lemzo création nekk jeune créateur joxé ko idée bi. Le jeunes ngir jeune couturier yi Sénégal ñom ci début ba tolloon ci 100 créateurs mais mu sommes ba ñet concours en réalité au départ nous won sama idée man wala idée wa Pikini. dafa am jeune tailleur bu dëkk Kër Création nous nous idée bi en tant que maison de production on s'est dit oui c'est une bonne idée donc man derrière ce que j'ai fait moi bon idée mais il fallait structurer il fallait créer une émission parce qu'une idée d'émission c'est pas une émission donc nous bind ko euh, rubriquer ko structurer ko jox ko cheminement lolu mo concours man euh, concours sañse gratification morale bi pour man moo ëpp moo ci ëpp njariñ moo ma kontaan loo parce que damay gis ba ñu tàmbalee concours sañse modèles yi xale yi doon présenté ak euh, euh, ni ñu ko doon ñawee ni ñu doon defee finition yi ni ñu doon defee coupe yi ma gis ci final bi ak demi final bi li ñu indi dalay wan ne def nañ progression bu am solo et comme émission télévision la loo xam ne nit ñi dañuy toog di ko seetaan ça veut que ñeneen tamit ñoo xam ne nekkuñu woon foofu mais doon nañ jël temps juste bu émission bi di jàll ñu toog seen kanamu télévision di seetaan peut-être que ñoom tam de nañ ci nañ ci xam-xam pour l'essentiel c'est des gens courageux Et dama ko wax finalistes ici, nous avons, dama ne leen yéen ay ndaanaan parce que concours boo 200 participants qui ci ñu dem ba mu des 10 yu egg final loolu mooy wane ne 10 yooyu ay ndaanaan lañu bu ñu lul woon ay ndaanaan du ñu egg final donc 10 yooyu déjà dama leen di féliciter di encourager di wax ils ont l'avenir devant eux madame moi je suis en charge de production ba mu que Pikini dafa risques a gros moyens tant côté technique que côté logistique au début ba fait sponsor suivre ñu dem bay bëgg fait conviction monsieur leen saison au début am na tailleur 200 en cours de championnat il y a beaucoup qui ont désister am na ñoo xamante ni gëmuñu ko woon dañ doon tey da nga leen doon sax neexal parce que comprendre ñu woon objectif émission bi ñun dañoo bëgg à travers concours Sañse montrer que ni industrie euh, mode bi am na part boo xamante ni part marché bu intéressant boo xam ni nit ñi mën nañ ko jël parce que tailleur yi tamit am na ñoo xamante ni dañuy bàyyi jàng ne damay ñëw amuñu moyen dugg ci école pour jàng ñëw lu ñu am mooy nekk seen koñ am seen benn machine wala nekk ci kenn def apprenti après génn yalla dimbali leen ñu am atelier amna ño xamanteni dañuy am passion né man ñew la bëgg def ñu dem jangi ko ci école de formation mais bu féké amo moyens yooyu je pense que concours Sensé ñi ciy ñëw di ko def au début ñu ko gëna gëm jëriñ na leen Nastu présentatrice su concours 5C, moom nak mannequin la ñu bëri war nañ ko ragné ci plateau yi kon émission mode wuy na ko mi ñu xamal ni début jafé won na torop ci moom tàmmoon naa défilé lumière et dar caméra et dar mais wax ci caméra Mais tout lolo. vraiment c'était très très très difficile. xam nga Sénégal bu ñu xam lu ñu xamul duñ ko accorder importance. Euh, concours euh, c'est vrai concept bi mooy tailleur concours bi mooy daal mais dafa am yeneen ñu ne ci biir am ay rubrique lu flash icône flash icône parce que ñun Sénégal suñu économie. yi am na ci une icône yoo xam dañu mën sañse am ñoo xam ne dañu am seen propre style vestimentaire donc jaadu woon na dem ñu laaj leen nan la ñu gisee change jamono ji ak ñoo xam ne dañu am seen propre style topp ñu tendance dañu am seen propre style ñu wax ñu lan moo tax ñu choisir style yooyu bés bi ñëw na maritu yoo xam ne dañ ñoon Sénégal chaque week am na ngénte am na mariage am na tànn biir te ci yooyu la nit ñi di wone seen bopp sañse défilé de mode la foofu mooy premier défilé de ne ñi ñi ci xew ñu indi ko ci plateau du jury ñu mën ñoo donc façon dañuy wane comme ni ko ne maquillage ci la diw bu la euh, coiffure greffage bu donc nous ñu boobay façon ñuy ñëw ci stylistique stylistique

Scofield moom nag monteur le bir Pikini production Aliou Ndiaye gis ko dénk ko projet lii di concours Sañse def ko ci réalisateur moom tamit concours Sañse bokk na ci liko jangal lu beuri. monteur yi cameraman yi infographie ñep la déplacer quoi nee nañ leen dem parce que tey ni Aliou amé confiance ñëw yëkëti ben affaire jox ma ko foog tamit ku su nekk tamit ma jox la sa wal ngay indi apporter ci ben côté ne mo noo defee nii nañ taxawé ni nañ défé non. xam nga mujj gi commencement bi la metti woon dañ doon am ay quelques difficultés ci yenn affaires yi mais biñ demee deux trois fois après maîtriser nañ ko moo tax ma ne concours bi concours la woon ci tailleur mais concours la woon tamit suñu en tant que technicien xam nga bari woon na sama mon parce que je me rappelle dès le début commencement bi rubrique bi dafa bari woon sama loxo mujj gi dama koy tax si salle montage bi jox Assane seen lii jox Baye As lii Maas ma jox lii gars yi ku nekk defar ñëw jox ma mu kii boobu maîtriser ma